Mansour Mbaye laa tudd bokk ci ñi liggéey fii ci marché Fine Bithie jotaay bi li ko waral mooy euh, sous-préfet dafa ñëw andil ñu këyit barki démb ni ñu léegi ñun dañuy ay ayloo jaay marché bi marché Fine Bithie ak marché Sëñ Mansour ñooy ay ayloo bu ñuy ubbee tey ñuy ubbi suba te marché yi jigéen nañ te ku ne xam na ni feebar dafa am ci réew mi feebar bi am ci réew mi nag ku ne xam na ni nit ñu bari lay bañ te suñ marché bi bariwul ay nit léegi nag bu ñu boolee marché yi nit ñi dañuy bari su préfet bi muy jël dogal bobu ñun waxtaanu ceeg ñun engagé wuñu ndax bu ci waxtaanoon ak ñun du def lolu mu ñew tay yabal fi ay policier ñu ñew tej ñu ñew tej ñu ñew tej marché bi nit ni dañuy ay ayloon jaay mi ñun bañuñu fu mbolo di dajé ndax marché bi amul fenn fo xamanteni mbolo da fay dajé marché bu ndaw la waye marché seigne Mansour ak marché fi mi kep ku dëkk way xam nga ni ñaari marché dafa takalo so jëlé ñé bàyyi leen ñuy ñëw fii wala nga jël ñi bàyyi leen ñuy dem moy bo la nga mbolo feebar biñ doon daw ñun dañu préfet lim ñu indil nii daf ñu ko daf ñu ko da da feebar bi ñu bi ñu war a daw moom daf ñu ko indil te loolu noonu ñun waa marché fii nii d'accorduñ ci bañ bañuñu nag ñu tëj suñ marché mais liñ liñ d'accordul mooy ay ay loo jaay buñ bu fekkoon da ñëw sax ni marché bi dañ koy tëj définitif sax mën nañ cee d'accord ndax bu boobaa dina jox ay raison yu tax mu di ko def mais joxuñu benn raison bu tax mu di ko def nee na mbooloo lay bañ kuy bañ mbooloo nag. do jël ñaari marché di len takalé xana da nga yok ay marché mais do éliminer ay marché préfé nak lim def ñun bañu ñuko liñ bañ moy defin bi mom lañ d'accordul ñew na nak sous préfet ma ma ma ngi jégalu sous préfet la bëgg wax sous préfet nim défé dogal dogal annu ñu ci ta engagé wuñu tamit ta bugguñu xëtt ndigalu président de la république ndax xayna suñu jarigna tax mu diko def mais sous préfet bi mu ñu fi tegal li mu def ni mu ko défé d'accorduñ ci wa marché bi nga xamné ño fi nek ay jigéena fi nek ak ay taabal yi ngay gis nii amul benn dërëmu benn benn benn benn kilifa goo xamante ni si ki muy maire muy koo mën a doon koo xamante ni dërëmam dem na ci marché bi amul lépp loo xamante ni si def nañ ko fi jigéen ñi suñu yaay yi suñu tante yi suñu mag yi suñu rakk yi ku ci nekk ku fi am taabal yaa fayal sa bopp ñu defaral la ko du benn maire boo xam ne dërëm wala ab ministre te ku ne xam na ni Guédiawaye am na ay ministre maire yi fi leen ëppee maire bi jiite maire yëpp fi la nekk muy Aliou Sall te seen dërëm musul dem ci marché bi kon ñun suñuy Dakar suñu suñuy lañ def ba suñu marché ba mel nii tey jii ñuy ñu ñu ñu ñu bëgg ñu see dolli dañu ko tëjal ñi fi nekk li ñuy liggéey seen njaboot lañ koy yóbbul joxoo leen benn dërëm nag ba pare li ñu ama ko su néew nga ñëw ni leen dootu leen ko am loolu lañ d'accordul moo tax ñu woote li euh, ki topp ci délégué bi lañ woo mu dem fa mais bi mu ñëwee rendre waxuñu dara rendre compte man waxuma ko man en personne man yëguma ko te bari na ñu ko yegul bari naa ci ay morom ñun yëguñu ko man bi ma yëg mooy barki démb la ñëw bi ñee indi kayit bi fii ci marché bi bi mu indee kayit bi ñëw teg kayit bi fii daal di ni préfet nee na ñun buñ jaayee tey ñii duñ jaay suba buñ jaayee tey ñii duñ jaay suba préfet bi mu waxee loolu ba pare moom bi mu waxee loolu ba pare man maa ko interpellé man en direct ñu ko yow kañ nga fa demoon mu xamal ma ni ma man bi ma fay dem bi ma ñëwee waruma a rendre ko délégué waxuñu dara ñun am na ñu ko yëg nag xëy am na ñu ko wax mais man en personne ak ñu bëri ñu mel ni man yëguñu ko te mën nañoo ñëw fii taxaw si wax comme li ma wax xam leen ni yëguñu ko. état dërëmu état dërëm bi dërëmu état demu ci marché bi waa marché bi ci boppam ñoo ko tabaxal seen bopp seeni i xaalis bopp lañ jël li ñuy liggéey fii seeni ñaat dërëm ak seen ñetti dërëm ñëw di ko dajale di ko ci def benn taabal bu ci nekk deux cent cinquante mille lañ lañ fay pour ñu defar ko benn taabal bu ci nekk deux cent cinquante mille lañ fay.

dëgg la ñun suñu délégué yi ne si marché bi suñu mag yi ne si marché bi am nañu si part bu rëy rëy parce que ñoom ñoo ñu war a taxawal ñoom ñoo ñu war a waxal ñoom ñoo war a dem kat ne préfet kat li ñu jël kat dëgg la parce que jàngoro bi fi dugg si ñëpp xam ne day rey dañ ko moytu même bu dee nag dañ ko dañ ko war a moytu dëgg la mais bu tëjee marché bi tijji marché bi ñuy jóge fi war a daw dajaloo fële foofu feebar dafay génn kon tey ñun suñu délégué waroon nañ dem toog ñaan préfet ne ko kat li nga wax dogal yi nga jël mesure yi nga jël baax na dëgg la président moo ko wax waaye nañ ko defee nii ak nii ak nii mooy gën a rafet mooy gën a am mucc parce que boo bëggee ne heure sangam ngeen tijji huit ba quatre heures tebal jour bee tijjiwaat nit ñi chaque dañuy lekk dañuy jën ñu amuñu frigo ñi amuñu fu ñu conservé kon tey foog ni ñu di jaay chaque jour pour mën a dimbali yenn waa askan wi suñu délégué tamit dañoo war a ñaan préfet ne ko. bu ñu sañoon nga ñuy may huit heures ba deux heures sax wala ba seize heures ñu wàcc chaque jour loolu dañ koy d'accord wa ilaa ñu tëj marché yëpp ku ne toog sant yàlla ñu xam ne feebar fi dugg si yàlla moo ko wàccee ñu muñ toog gëm yàlla xam ne parce que suñu kaaraange bopp ñoom noonu la ñuy wër Macky suñu kaaraange lay wër préfet suñu kaaraange lay wër dañ see ànd ak moom waaye anam ba mu ko defee moo rafetul moo na xool anam bu gën a rafet mu def ko suñu njiit mit laay lancer message ne yii bu amatee ñoom nañ jël seen responsabilité taxaw ne carrément kat li mo am li ak ak te lay am préfet kat préfet ne kat dañu pour xol ni ñu marché ñom ñu tok woñu ñun ne na nga parce que mbolo moy doolé bu ñu joxé suñu cadre ñu respecté parce que instant bi ni ñi duñ parce que message yi moo jallul bu baax réew que mu ngeen bëggee mu nañu message yi comme wax Cheikh rend nag compte mais dafa wax ñii bàyyi ñii lu ma koy waxal moom it mooy que bu buñ ko amatee dara message bu ñu wax wala préfet di ko indi si marché bi moom kese newul si marché bi ñu woo ñëpp ñëpp taxaw wax li ñu bëgg ni ñu ko gisee ni ñu war a def dafee ñu dem toog préfet ko parce que ñaan lañ am ñoom seen dëgg lañ ne nañ ñaan ne carrément kat préfet kat bu ñu soñoon nañ ko defee nii parce que ñun ñu nekk si marché bi xam nañ marché bi ni muy doxee ñaari marché yi dañoo jegeantoo boo tëjee fii bàyyi bee tëj kon gars dañaa fii kat xaari xaaruñu daw dem jëndi fële kon sinon dajaloo bi ñuy daw day am te feebar bi fa lay gën a ñëwee xamoo kenn ku jógee fee nii ne xaama daw marché Tiffin bi tey marché Tiffin moo tëjji daw fa kon tey loolu yëpp ko éviter te xool naka la ñuy doxalee naka la ñuy tegee seen mbir avant ñu jël yenn décision yi jërëjëf. san aw Ndiaye laa tudd hmm? Awa laa laa laa tudd li ñu bëgg a tëj marché bi moom loi la yoon moo ko santaane ñun ñoo war a doxal suñu loi parce que suñu kaaraange dong la ñu bëgg. ñun nag li tax ñu lal tey dañu ne jeudi bu ñu jaayee tey ñun suba duñu jaay ñun jour bu jeudi waree jaay ñun ñu tëj jaayuñu yaa ngi dégg ñun démb ñu war a jaay jeudi lal ñu ne comme jeudi lal na te du te du bisam ñun tam kon dañuy lal lii mooy moo indi suñu lal tey mais ñun ñu sart Cheikh Gueye nag lu ñu ko wax tooñ ko yaa ngi dégg préfet ñoom ñoo dogal seen dogal du ñu dem du ñu dikk moom rek mooy dem kuy dem nag yow la ñuy waxal moom rek mooy dem bu demee nag ñu signé ñoo wax délégué délégué yi ñoo war wax nit ñi Cheikh Gueye lu ko ay wax tooñ ko préfet moom moo signé signé am Cheikh du préfet du du du maire du vice maire nan leen waxante dëgg te yàlla rek tax Cheikh Gueye defalu ma dara mais nag dëgg boo gisee da nga koy wax lu ko si waay wax tooñ ko defu ci dara ñun nan ñun lii ñu nu def bu fekkee yoon bi moom dox na bu ñu jaayee tey ñee jaay suba ñun mën nañ koo appuyer toog benn fan du dara parce que suñu santé yaram rek la ñuy wutal mais marché bii nag moom maire def fi dara sunu 250 mille la nu fi wàcc dërëm defaluñ ñu ko fi man loolu rek laa am lu may wax nan nu dimbali ndax ay néew gi doole lañu bu ñu xëyee pël fu teye la ñuy jël di jaay di jox sunu njaboot amuñu dërëm loolu rek lañ leen di ñaan mais waa bi jéggiwuñ ci leen parce que ñun suñu yar wér gi yaram lan nuy wutal man loolu rek laa amoon lu may wax